mbooloo mu takku ñoo ko wuy si fii ci Yoff frigo ci wetu marché bi fas yéene gunge ko jëmmalaat li nga xamante ne mooy maire bu mu doon fii ci Yoff waaye fexe ba mu uutu ki nga xamante ne jamono ji moo nekk meer bu Ndakaaru mbooloo moomu ñoo ni Abdoulaye Diouf Sarr yaa ñu doy bàyyeekoo ci ay gox yu fasantikoo fii ci Yoff fas yéene gunge seeni njiit njiit loole ànd ak délégation bu takk ay kilifa moo xam ay ministre député ba ci ñi nga xamante ni ñoo jiite doon ay kilifa diine wala kilifa aada fii ci yoof ñoom ñëpp a teewee bile meeting d'investiture Abdoulaye Diouf Sarr yamu ca ginnaaw bu mu jëlee kàddu la mu xamal mboolo bi mooy nii jàpp na ngir ndakaar soppi xar kanam waral bi muy bégal ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom ne du yàgg dara ñu fësal ab programme bu yaatu boo xamante ne lañ ci jublu mooy fexe ba daal di fësal seen yéene gi ñu am ngir ndakaaru ginnaaw bi ñu jotee eh, ci eh, capital bi ci ngoon ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru eh, janvier bi ñu jëm di élection locale yi laata boobe Abdoulaye Diouf Sarr di xamle ni. daañu amal beneen ndaje boo xamante te dina jëm euh, ci daal investir fukk ak juróom-ñeenti candidat yi nga xamante ne mooy candidat wu Benno Bokk Yaakaar ci ndaje boobee du ñàkk ci la ñuy fësal yoon yi ñu fas yéene jaar ngir jote ci euh, capital bi di ndakaaru naka noonu it sóobu ci liggéey lay soppe xar kanamu capital bu senegal laata loole ay militant ak i soppeem naataangoom am di jàmmam bàyyee ko fu ne ñëw wone mbégte ak it ànd gi ñu ànd ak moom Abdoulaye Diouf Sarr ne lañ ca jublu mooy fexe tegaat ko ci mairie bu yoof waaye it def ko mu doon maire bi njëkk ginnaaw bi président Macky Sall jotee nguur gi ak léegi di maire buy fare ci benn Bokk Yaakaar